damay wax ne bu ñu leen remercier ba pare ci seen teewaay fii dama ànd ak samay nawle muy ay mouvement citoyen muy les agents de santé muy plateforme bi nga xam ne ba Ablaye Diouf Sarr bëggee doon candidat te ñun ñu nekk waa dakaar ñu xam ne nit kii nit ku yaru la nit ku am jàmm la nit ku bëgg réewam la ndax li mu def ministère de la santé wane na ko ñu créé woon benn plateforme pour xamal ne Macky sàll mënoo am candidat bu gën Ablaye Diouf Sarr plateforme boobu mu ngi tuddoon Ablaye Dakar ko soxla bi loolu weesoo ba mu doon candidat ñu ciy remercier président ñun waa Dakar biñ ko dooree teg ko ci tête liste bi plateforme bi ñun transformé nañ ko. mu tudd Ablaye Dakar a soxal plateforme boobu moo fi ne agent de santé yi ñoo fi ne hôpital Fann ñu toog hôpital Albert Royer yeneen hôpitaux yi ñu ngi ci gannaaw tous les hôpitaux du département de Dakar sont ici représentés les communes d'arrondissement madame Khady est là commune de responsable politique commune d'arrondissement Bel donc mu doon ay mouvement citoyen ak ay responsable politique ak association ba nga xam ne day yëngu ci wàllu wérgu yaram ñoo dajaloo wax ne li xew Sénégal ci fan yi ñu dén dëmbal musul am Sénégal si boo leen ko fàttali ko mois de mars benn responsable politique bu ñu wax Ousmane Sonko am na lu mu séq ak benn jigéen bu nekk Sénégal bu tudd aji Sarr waaye wax jooju mujj nañ ko teg ci ndoddu nguuru Sénégal te bi mu fay dem kenn fekkewu ko kenn diriwu ko ba Sénégal xaw a lakk ndax ñu gis ay force occultes ñu song di saaga ay juge muy bulet ci Sénégal di saaga ay magistrat di saaga ay préfet di saaga ay gouverneur di saaga ay fonctionnaire de l'État c'est-à-dire di saaga Sénégal ndax État Sénégal administration moo ko ŋànk ñu loolu am 14 xale gaañu ci bërki démb ñu gis ne Barthélemy Diaz moom ca 2011 dafa nekkoon procès ak ku ñuy wax Feu Ndiaga Diouf bi nga xam ne moom yoon dafa jàpp moom moo ko faat te bu kenn fàtte ne moo génn na ci tele mu wax ne j'ai tiré gaañ naa ñetti nit. am na xëy na ku ci dee maa ngi koy jaale moo ko wax waaye man loolu du suma wax waxam la ñu jàpp ne kooku di Ndiaga juuf am famille justice nekk di def liggéeyam justice rek mooy wax ne ndax Barthélemy moo rey wala reyul man du loolu maa koy wax waa justice bi ko war a wax woo leen ci 2017 bi ñu leen woowee ñu condamné Barthélemy ñaari at ak juróom benn weer bu muy tëdd fay vingt cinq millions Barthélemy ci boppam parce que loolu la yoon maye ndax dañuy bañ ñu jël nit tëj ko ci kaso bi jaay ko doole yoon maye nga mën a def appel famille Ndiaga Diouf mënoon nañu wax ne peine bi ñu teg ci Barthélemy peine bu léger la ndax ñaari at lañ ko tëj waaye six mois ferme la mooy du tëdd ñaari at yi sursis la rek ñooñu waxuñu dara Barthélemy ci boppam moo def appel procureur it def appel waaw appel boobu 2020 le tribunal jóg woo Barthélemy woo famille Ndiaga Diouf pour déglu leen pour atte atte bi waaw bi ñu demee ci loolu Barthélemy moom demandé na juróomi yoon demandé na juróomi yoon ñu daldi renvoyer procès bi benn ci bu mu dafa ñëw mu ne juge bi. dama war a def examen man sax xaw moon ne moom jàng na ndax dëgg yàlla xaw moon ne jàng na ndax comportement am génneewul lool dafa ne juge bi dama war a defi master en Europe wala daal bitim réew juge bi daal di ko ko may ne demal ba nga ñëw ñu suspendre procès bi bu mu ñibbisee juge bi wowaat ko mu ne ko danga may may damay anniversaire sama pap li may wax ay preuve la ndax démb ba nekk débat ak chargé communication kooku wax ne Barthélemy renvoi yi mu def yëpp loolu la anniversaire u papam beneen bi mu ñëw ne dafay dem vacance ak waa këram waa juge bi renvoyé ko ba juillet juillet jot ñu convoqué ko juillet jot juge bi ci boppam renvoyé pour le 10 octobre moom yëg na lépp xam na lépp mu toog ba ñu déposé liste candidature yi mu jóg ne Macky sàll moo ko bëgg faagaagal ci wàllu politique loolu nag moom la ñuy wax ay ndëgg sërëx yu muy teg pour nax opinion sénégalaise pour xëy na bu ñu ko yërëmee ñu jàppale ko ci ville de Dakar ndax xam na ne amul benn chance pour gagner ville de Dakar ndax nag ndakaaru duñ ko jox ku arrogant ak ku foog ne Far West lañu nekk États-Unis bi Far West juddoo amatu fa c'est un pays de droit donc Sénégal réewu droit la kon Barthélemy mook Sonko ak ay ñoñam tàmmal nañu léegi saaga juge yi saaga mag bu wax ñu saaga la menacer policiers yi gis ngeen ko ci image yi muy attaquer les policiers mais suñu loolu nga xam ne moo téye suñu réew bànkaas yi nga xam ne ñoo téye suñu réew képp ku ko bëgg a nasaxal ñun dañuy jóg ndax ñun Sénégal nag moo ñu dugal école primaire moo ñu yóbbu université ba ñu doon li ñu doon tey kon dañuy taxaw ne réew mi te nag bu Sénégal takkee ñun amuñu fu ñu jëm man awma beneen réew fii rek laa dëkk awma nationalité américaine awma beneen nationalité africaine mois je suis sénégalais Sénégal laa am donc ñu jóg def mouvement citoyen ne ñun tey taxaw nañu doon ay bouclier pour que tey jii loolu arrêté te bu arrêté wul dañ ñu fii fekk ci suñu seen yoon tey ñun taxaw nañu ni ñoom bu ñu bëggee taal Sénégal ñun ñu taal leen ndax Sénégal moo sut Macky Sall moo sut Ablaye Wade may fàttali ne ñi ñuy saaga muy muy justice muy préfet yi ñoo fi organiser élection Ablaye Abdou Diouf daanu ñoo fi organiser élection Ablaye Wade jël nguur gi ñoo fi organiser élection Ablaye Wade nekk ci nguur gi xalifa Sall jël ville de Dakar gagné ko en 2009 ñooñu ba tey ñoo fi nekk kon tey dañ leen war a di sargal jox leen cër waaye foo dëkk di saaga lakk brigade gendarmerie lakk état civil suñu doom yi bëgg a jàngi mënuñu am këyit loolu day jeex ci Sénégal ñuy wax nag président Macky Sall moom mi nga xam ne moom la askan bi jox baatu réew mi dénk ko mu jóg ci loolu te tamit te tamit ñu ngi dégg ku mel ni Alioune Tine dama koy citer parce que man dama respecter société civile waaye nag société civile loo tëdd tëdd jaaxaandaay du tere ngay wax dëgg muy wax nañu reporter élection locale yi kenn du ko reporter parce que mi simplement on l'a convoqué pour aller comparaître devant fi mbaxane doonee benn kon nañ ko wax mu régler mu yam mu xam ne mënul taal Sénégal wasalaam